Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de du like, merci de du abonné, merci également de bailler des commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Hein. Mbokk sénégalais fépp fu la maintenant 14 régions du Sénégal àdduna wërngal këpp ñi ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci dal hôpital yi ci kër de février, feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñi nga xam également ci kaso yi lañ nekk erreur judiciaire ak giñ leen lu ñu deful dugal leen fa yàlla na suñu borom génn leen fa ñi nga xam aussi seen jëfal leen fa yóbbu suñu borom tegal leen ci yoon dëgg te jub jubal leeral ñi dëddu àdduna suñu borom xaar leen àjjana fi daw si gayte yéexee ñu on avance ensemble ensemble dans la magie de e-sport TV gars actualité bi gars yi qui continuer ki nga Samba Diallo gannaaw ki nga Sadio Mané donc Bayern Samba Diallo le dali ciblé Robertson di rendre hommage à qui nga xam Sadio Mané ak aussi dit di roi Sané mi nga xam wach mi ngi wax euh, mi dalal Sadio Mané du côté du Bayern Dominique mais d'abord, footy Foot Headlines nee na maillot bi ngeen gis ni mooy maillot bi fuité bi nga Milan AC champion en titre bu Serie A donc supporter Milanais donc seen maillot ni la wara a donc li nga xam mel plutôt di saison bi donc vient euh, di recevoir fa nga xam ne mooy pendant euh, Enrique le joueur de Marseille donc actuellement gars donc moom ah, ko ciblé du côté de l'Angleterre ah, aussi en ngi Espagne ñi naan Angleterre en tout cas moom lui il est sur le chemin de la sorti du côté du Paris Saint-Germain Vitinha moom mi nga xamné donc Paris Saint-Germain da ko bëgg a jënd donc actuellement nee nañ affaire li tax bloqué moy que né euh, ñi di Porto dañu bëgg Paris Saint-Germain fay leen 40 millions ben yoon Paris Saint-Germain nag da ko bëgg étaler fay leen ko ci ñaari patch lool nak moo tax ba léegi déggaguñu mais dal Vitinha bokku na ci cible Paris Saint-Germain yi et ki mom di Raheem Sterling mom nak mom xam ngeen né contrat 2023 lay jeex prolonger gul du côté de Manchester City nee na moom buy prolonger day prolonger pour avenir bi wala bok buy dem tamit day dem ci club bo xamné da fay jouer ak contrat bu baax a baax a baax moo tax moom Raheem Sterling kenn mënu leen wax ndax day dem wala du dem jamono ji ki nga xam ne nag moom mooy donc kii di ngeen di gis ni Takumi euh, plutôt euh, Minamino ah Takumi Minamino moom nag ah gën na jege ñii di waa AS Monaco boo matul fa lay football de woon donc rivalité bu dina am foofu nga xam ne nag moom mooy diggante moom ak kii di Crépin euh, Diatta pendant ce temps Galtier au PSG c'est Timina ah, gars yi nag accord mujjee na Galtier contrat deux ans ak benn année option lay signé pour nekk li nga xam ne nag mooy entraîneur Paris Saint-Germain de woon du côté. Euh, de Parc des Princes donc ki nga xam Mauricio Pochettino de daal di un ancien joueur du Paris Saint-Germain nga xam ne Rabiot Rabiot nag actuellement Thomas Tuchel da ko bëgg a attirer du côté donc des Blues de Chelsea moom mi nga qu'un joueur qui xam ne compté ci dispositif Thomas Tuchel avant moo dem ci Juventus de Turin Juventus de Turin nga actuellement nag nee bu option dañ koy bàyyi mu dem ki nga xam Rabio, Rabiot ki nga aussi moom ngeen di gis Lucas Paqueta. Tottenham aussi da cee teg gëtëm bi nga xamné Newcastle Arsenal ñi ngi euh, intéressé wu ci mom donc aussi Tottenham jamono ji nenañ ñom tamit ñi ngi xol na lañuy bu fekkee mën jënd ki xam moy le brésilien Lucas Paqueta ki ngeen gis ni aussi ah, Donc donc nek joueur du Paris Saint Germain Pablo Sarabia wax naa ko Atlético Madrid fini nak ne nag ñoom dañoo bëgg ñu daal leen koy jox avec prêt avec option d'achat obligatoire donc ñuy wax waxu 10 millions donc Pablo Sarabia nee bu ñëwee Paris Saint-Germain moom temps de jeu moo ko fa indi donc moo du côté de l'Atletico Madrid daal la ñuy peut être mën na fa dem ki nga xam ne donc Ousmane Dembélé mom, gars yi nee nañ mi ngi commencé nag di xalaat ne est ce que du prolonger du côté de Blaugrana gannaaw bi nga xam ne boobu ba léegi moom ak agent du jubawuñu ak Barça ci li leen di fay daf mel ne fi mu ne commencé na dellu ginnaaw pour mën euh, prolonger aventure du côté de euh, de Camp Nou qui ah. ki ngeen gis donc di Junior gars yi euh, juillet bi la war a signer contrat ak euh, Real Madrid peut prolonger ba 2027 2027 avec contrat option d'achat 1 milliard jamono ji mi nga donc il veut continuer sa carrière dans le plus grand club du monde et que Real Madrid lañ le plus grand club club du monde il Williams a yi williams 233 matchs macha le football musta blessé depuis 6 ans macha allah mu nekk record boo xam mon moom donc depuis donc six ans Iñaki Williams 233 matchs le jouer. ki nga xam nak momay donc euh, ki di Mohamed Salah rend hommage Sadio Mané ah, donc nee na euh, ce fut un plaisir de de jouer ak yow donc ak liñu liñu li mag lay souhaiter bonne chance di la wax né sa aventure bi ñeu également yalla na fa am réussir bu baax a baax ki nga xam également mom ngeen gis di Andy Robertson nee na tamit ah ce fut un plaisir immense d'avoir partagé avec toi le côté gauche nee na yeg yëg bi mo am ak fierté bi ma am pour doon jouer ak yow ci côté gauche bi nek na koo xam ne gars yi wax nee nañ la tu vas me manquer mon mon ami mon meilleur Amin la ko dig ma manqué mon meilleur ami mais déjà amitié bi commencé na jodu diggante nga xam Sadio Mané ak Julian Nagelsmann gis ngeen leen ci photo bi hein Sadio moo xam nga rek day kaañoo Nagelsmann gis ngeen ko donc photo bi mu nek ni mom avec l'entraîneur bavarois bi nga xam Sadio Mané il a été séduit par le projet qui euh, aussi di le roi Sané Leroy Sané mom nee ko welcome to Munich one of the best player uh, one of the best Premier League striker in the recent years mu ne ko euh, soyez le bienvenu yow mi nga xam ne nga ci euh, premier buteur ak plus grand cent joueurs yi euh, ci Premier League euh, jamono yi ñu mujjé ñu nekk ni ni donc koku di Leroy Sané moo ko wax pendant ce temps Samba Diallo moom. xam ngeen ne mi ngi ñu ko doon laajte ah. donc xam ngeen ne Samba Diallo actuellement donc nag mi ngi fa nga xam ne mooy ca Ukraine moom nak euh, contrat ba 2026 la mais waa Bayern de fi mu ne dañoo interest bi moom bu baax a baax a baax gannaaw bu ñu gisee Ligue des champions li boy bi doon def moo tax Samba Diallo boo moytu aussi mën na dem rejoindre Bayern de mi nga xam ne Sadio Mané signé na fa ba pare moom mi nga xam Dinamo de Kiev la nekk jamono ji donc loolu bonne nouvelle lay doon pour Sénégal yi donc gars yi wéy leen di like wéy leen di abonné jaa ngeen